salaamaaleykum ah ndaw soosu ñëw tuumaal nu day nee nañu weddi tuuma moom dug ragal wet setal sa der la te moom dafa bokk ci noonu ndax dafa jur ak ñoon ay njaboot bëgg woonoo koo taqal dara ndax xale yi mu jur ak ay mag yi jëmm lañu kenn ku jigéen ki nga xamante ne seex bi am na jë doom ba am jë eh, am na jëkkër ba am doom ba mi ngi boot doomam kooku lu nu waxate xam na ko te xam na mbonu yaay mën na la koo wax ñun ñii mu nekkal nit xam na nu mbono yaay mën na nu wax waaye da di nit boo bokkeek moom deret doo yàq deram te koo abal njaboot ku ne bu deret ja ñuulee yéen a ko bokk bu deret ja weexee yéen ko bokk waaye ñu koy jéem a sàng sutura nag mu bëgg li ñu sunu sutura ah tontu wax nag moom du du loolu euh, dindi tuuma la loolu moo tax ma ne la xale bi depuis ba moo jugee ci sunuy loxo ba léegi ak problème keroog bi nga xamante ne tabaski la fi ñëw timis la jógee Thiès ànd sama rakk ji booba sama rakk ji mu ngi nekki cees lu ëpp ñetti at sama yaay di ko wër sama papa di ko wër mu nekk cees gi gisuñu ko ba ci yàgg benn suuru tabaski ñu ne suba la tabaski mu ne dareet dikk si kër gi indaale xale bu jigéen bi sama papa ni du dugg ci kër gi ndaxte kii xam naa ne woyu la bi nga xamante ne nii def nañ loolu sama doomu baay bi doon sëy fii moom la ñu wooyee ñu ne ko paapkat comme que demoon na ba yàlla xeer ko mu dellu si indaale jabar téye ngeen koo téyel jabar gi ndax kon na mu doon demee jabar gi dina tax mu toog ci kër gi te ba muy demit liggéeye taxoon mu doon dem ba mu lu mu am la doon indi waaye diggante fii ak foofa te amut lu mu indi ñëng na pour delloo si ko ñu ne comme que am na jabar ba dikk indil leen ko li muy indi alal indi jabar yu ko teg ci kër gi moon moo moo ko gën lii moo waral ñu téye woon xale bu jigéen bi depuis booba tam ba yàlla dogalee mu ñëw ay seex la jëkk am ak moom man mii may wax naan magam bi jógee Dakar moo moo ko doon faral ñun ñoo ngénte doom ja ñoo ko xotil ñoo ko solul ñoo ko defil yëpp ba barki déem boo njaay bi affaire bi bi mu amee lijjanti nañu bi ñu ko waxee laa ko ne pap ku nekk ak jigéen danga koy muñal xañ na yii yëpp dina ko bàyyi bu demee ba ca kanam ndax ñuy sàng sutura sunu doom yii yi rek a bañal gàkkal seeni doom yi rek ndax lii day dem ba ci seeni sët ba ci seeni sëtaat lépp ñu boole li leen neex ak li ñu neex ak li ñu naqare yëpp di ko sagal bañ ko li ñu sutura mu dem ba bëgg li ñu sunu sutura looloo tax nuy wax waaye ragalunu ñàkk noo xam fu nuy jaar du nuy innocent pape juróom-ñaari maamam yëpp xombal la ñu dëkk koo koy wax ci kii bi ne moom xam euh, pape dafa luye xombal waaye maame pape moom moo man xombal gi soose sàmb mooy sunu maam waaw soose sàmb mooy sunu maam Malick sàmb mooy baay juróom-ñaari maami pape yëpp xombal lañ dëkk kooku ciy wax nag xamu ci dara pape Adama bañ ko wàccee te kees la ñu ko jëlee woon bu fekkante ne naroon na jub wala mu naroon kii waaye nijaayam da koo génne woon ci es waaye Adama muy ñëw fii amoon na mu njëkkoon a sëy jolof ba muy ñëw indaale ne doom yoo xamante ne nii booba waaje da koo wuccan ginnaaw bi la waaje dee te da koo indi woon fii ñu boole kook moom yor ginnaaw bi la ñu delluwaatoon kees seen kër maam ñuy dem di dikk boobu ba léegi nag amuñu jàmm amu nu salaam te lépp lu ñu wax rek ñu tekk ñu tànk ne ko da ngay sëylu kontam keneen bu ñëwee ci yow te am nga ak moom njaboot ba pare bu leen yàqante seeni i der yi may wax aada mu ñël di ko wax moom mu muñal kon nag bu jikkee ba nëgëni si mu def lu ne weng wengeera xanaa tiit na wala barde na nun talagunoo wax talagunoo def ndax danoo am sunum niiw di ko jooy te suulagunu ko ñoo ngi ci yoonu octobre si nan ne cell ba toog si génn ba xam lan la la lan la indi lool lool dong lool la nuy wax waaye damaa bëggoon yéen ci seen bopp bu ngeen ñëwee ba ngeen wàcc gaaraasu xobal ngeen laaj ba xam xale bu góor bi day liggéey wala du liggéey kooku ne na moo dëkk ak moom moo leen di dundal day fen day fen ci wàllu boppam ñooy xëy bu ñu xëyee jóge ci seen yaay fii la ñuy ñëw ci seen papa mu jox leen dégg sama doomi baay yi ñu dëkkër bu ñu wàccee ñoom ñoo leen tibbal añ ñu bokk añ kooku amul lu leen jox amul lu mu njabootam bay jox kenn wax ji nag bari na coow li bari na waaye yéen damaa bëgg lépp lu waay de def te ñeme ko rek nga wax ko ba mu jeex yéen su ngeen manee heure bu ngeen ñëwee xombal bala ngeen a egsi man nun sax def leen micro trottoir ba xam ndax kooku ku liggéey liggéeykat la wala ko ñi may joxe jël la wala ko jëkkee eh, man ak ku jigéen ki ni mu mel xombal gépp laaj leen ku jigéen ki ni mu mel mësula naan musta laal luy sàngara moom moo fi ñëw indi ay collaborateur débarrassé Pape ak ay bokkam yépp manipuler ko ba xëy mission bi mu doon dox egg na ndax rey ko rek la bëggoon ndax kërëm gu mu am defe ne nag mooy mooy toog ca kër gi waaye dañuy bàyyi lépp ak yàlla